wa ala alihi wa saxaabatihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen balu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu nangul suñu jaamu yàlla te jéggal suñuy bàkkaar di ko ñaan mu yàggal fii Cheikh Mouhamadou Mountakha bokk ci ndénkaan yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dénk na ko jullit yépp rawatina taalib yi mooy taqoo ak i ci barab bu mën a doon ak waxtu mën a doon wax ne amartukum bil ijtihaadi fi ma uzina lakum bila wufuulin anhu wa nahaytukum an kulli ma la faidata fihi wa amartukum bi mulazamati taaddubi fi kulli shay moo taxoon amoon na waxtaan yoo xam ne dañ koy jëmale ci buntub ay teggin waxtaane woon tegginu aw yoon tegginu waxtaan ak jokkalante ay kàddu tey nu bëgg a ci buntu teggin yooyu rek waxtaane teggin yi aju ci euh, marché ak jaay ak jënd ku ne xam na ne barab bii di Touba dafa am worma joo xam ne wormay diine la mooy ca bokk na ci sàmmoonteeg worma jooje ku fi nekk jéem a xam teggin yi lislaam digle nga di ko bàyyi xel di ca tënku ci looy mën a yëngatu lu ne moo tax ñu bëgg a fàttali tegg ni nga xam ne moom la marché laaj ndax barab bi barabub jaay ak jënd la ni nga xam ne ni la nekkee barabub xam ak barabub jaamu yàlla ndax jaay ak jënd dafa bokk ci liggéey yi nga xam ne mënees na cee fàggoonu leew ci sëriñ bi ñaanoon fu aw yu nekk ci àdduna suñu boroom indil ko ko ci dëkk bi ca loola yaxantu bokk na ci li nga xam ne dana ca jaare kon bokk na ci li ëpp ci lu ñu yëngatu ci barab bii mooy euh, liggéey ci jaay jënd rawatina ci biir euh, marché yooyu muy jaay kon nag xam lu teggin ya mu laaj dana dimbali nit ki ci mu xam nam fay nekke ci ni ko ko diineem digle digale te loola bokk na ci li koy may barke ca la muy yëngutu ndax dana ca mën a moytoo lu ñu tere moo xam lu araam la moo xam luñ sib la moo xam loo xam ne lu lënt la kon nag waris naa bàyyi xel lool solo si nga xam ne ab ja am na ko mooy marché ak nekkiin wa fa war a nekk lu mu laaj ndax marché day barab boo xam ne yàqoo fa yàqule fa ci lu jëm ci sa diine dafa yomb lool moo tax ku fa nekk war a bàyyi xel ni ngay war a sàmmoo ni ngay war a sàmme say doxaliin ni ngay war a sàmme saw nekkiin suñ boroom ci kaddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafay méngale jàkka ak marché jàkka nim yomba defaroo jaamu yàlla yombe fa muy barab boo xam ne néegub suñ boroom la noonu la marché nekk safaan bi ci man ma yàqule fa yomb jëfandi foofa loo xam ne jaaduwut yomb moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ahabul bilaadi ilallahi masajiduha wa abgadul bilaadi ilallahi aswaaquha moo tax sallallahu alayhi wa daana dem ci marché yi di dox ci marché yi ngir fàggu ay ajoom waaye daana bàyyi xel jullit ya fa nekk nañuy doxale mu leen cay gàgganti di leen ca gindi di leen ca laabire dox gim daan dox ci marché bi sax gis nañ ci alquran yéefar yi daan ko ci mel ne ko ko ciy ñaawal wa qaalu ma li hada rasuli yakulu taama wa yamshi fi l aswaaq waaye bu daan dox ci marché yi it bu masaa gis lu jaaduwut da koy bàyyiloo xel boroom bàyyiloo xel boroom ca loola mos naa di dox ba romb ak mbuus goo xam ne wala saako boo xam ne aw ñama ca nekk yonent bi alayhi salaatu dugal loxoom ca saako ba ba mu ko génnee gis ne loxoom dafa tooy ca kaw saako bi doo ci seetlu ne dafa tooy ñam wa dafa tooy mu laaj boroom ñam wa ne ko waaw lii moom lu mu mu nekko moom ko dafa tawte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw teewoon ngaa jël tooy tooy bi féetale ko kaw ndax nit ñi xam ne lii dafa tooy teg ci ne man ghasha fa laysa minna mel ne kuy def loolu yaa ngi def li ñuy wax tricher yaa ngi wuruj loola nag moo tax kon ñu gis ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana bàyyiloo xel ku nekk ci marché nga xool nanga nga fa war a nekkee ak jëflante boobee jëflante bi ngay jëflante doomu aadama yi bokk na ci nag li nga xam ne moom ay teggin la yoo xam ne ku ne kuy yëngutu ci marché war koo bàyyi xel mooy taqoo ak tudd yàlla ñuy wax tudd yàlla nag di ko def ci sa làmmiñ waaye di bàyyi xel suñu boroom ci sab xol sam xel ba looy jëflante nga di ko ca sedd nga di sédd suñu borom subhanahu wa taala xam ne mi ngi gis lépp mi ngi xam lépp looy def rekk nga def ko ci ak sellal def ko ci ak njub def ko ci ak dëggu saxoog tudd yàlla loola suñu borom subhanahu wa taala def ko digle wax ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi min fadlillahi wadkuru llaha kathiran laallakum tuflihun kon bu suñ boroom diglee ne bu waxtu julli jotatee nangeen bàyyi njaay mi muy ajjuma buñ ko noddee na ngeen bàyyi njaay mi nga dem ngeen dem julli ji waaye bu noppee na ngeen delluwaat fàggu ji ngëneelul yàlla te ngeen di tudd yàlla lu bari waaye tudd yàlla boobu it war naa ànd di sàmm say cër ndax barab boo xam ne ku ne fay dugg si melokaan wu nekk dees na ko melowoo kon yow boo fa nekkee bokk na ci li nga war a def mooy sàmm say cër rawatina sàmm sab gis di damm sab gis bañ xool lu araam bañ xool loo xam ne xool ko dañ koo sib wala dafa dañ wuñ ko loola dafa doon loo xam ne ci ndigali yàlla yi la bokk ndax qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum dalika azka lahum inna bi xabirum bima yasnaun kon ndigal loolu nga xam ne suñu borom daf ko digle ci jullit bi war a sàmm ab gisam ca la muy xool loola fépp la jaadoo waaye boo noppee boo nekkee ci barab boo xam ne nag ñépp fay ñëw melokaan wu nekk di fa ñëw loola dangay yar sa bopp ci bàyyi xel la ngay xool ak la ngay seetantal ak langa xam ne dañ la ko tere ak lañ la xam ne may nañ la ko loole it ni waru ni mu waree góor noonu la waree soxna yit jigéen moom it niñ diglee niñ digale góor mu sàmm ab gisam noonu lañ digale jigéen ñi qul lil muminaati yaxududna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna su nga xam ne bu nekk ci ab jaax war nga koo bàyyi xel waaye bokk na ci bu dee soxna moom am na leneen lu ci dolliku mooy ci loolu nuñ ko digale góor waaye soxna da cee raw mooy col-col gu yiw ak dox dox doxinu yiw ndax bu ko deful jeexit yam mën a am eh, yonent bi sallallahu alayhi wa day digle soxna si nga xam ne day génn mu bàyyi xel ci jeexit yi mën a def ba tax mu war yiw war a gu yiw wal waaye war a dox doxin yiw moo tax subhaanahu wa taala di wax ne soxna yi na fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliya tabarrujal jahiliyatil ula waaye yonent bi waxaat na ne soxna soo xam ne yaa ngi gëttu di romb aw nit ngir la nga xeeñoo di leen xeeñ kookee dafa mel ne ku def wala yaasu billah li ñuy wax njaalo kon yooyu ay teggin la waaye nag buñ ñëwee ci njaay meeg njënd miit am na yu kiy jaay di wara a sàmmonteel ndax moytu yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo tere te bokk na ca loole mooy ngay wax lu amul ngir sam njaay tonowu di waxaale di ca waxaal di ca wax loo xam ne loola demewul na ko waxee loola dañ koo tere yonent bi doon na wax ne am na ñett ngi ñoo xam ne yàlla du wax ñoom yowmal qiyaam du leen xool te du leen sellal te mbugal mu metti mi ngi leen di nekk wax ko ñetti yoon abu zar ne ko ñuñu dey perte nañ waaye ñooy ñan nag mu limale limaale ki nga xam ne dafay jaay marchandise di ca ngiñ ngiñ loo xam ne lépp ay ay kàcc la waliyaasu billah kon di wax dëgg kuy jaay ak jënd mooy xam mooy jaay la moo xam muy jënd la war nay fexe ba la muy wax dëggu bëgg bëgg tonawu wërta tax muy waat wala muy wax loo xam ne demewul noona waaye bokk na ci li nga xam ne dañ koo tere te mu bari lool nag ci suñu jaay te mooy ñi nga xam ne dañoo am man-man di jënd marchandise yi di ko denc te mooy ixtikaar ngir prix bi yëkkati ko ñu mën koo jaayee lu cher loolee moom bi sallallahu alayhi wasallam da tere lool te mu bari lool ci yenn barab yi te loolu war a moytu fii loo xam ne denc gi ko nit ñi denc moo ko seeral waaye wërta cher loolee la ñuy bañ nga xam ne nit ñi aaje woon nañ ko ñi am ay benn benn yoo xam ne mën nañ seen bopp am nañ doole dem jënd ko denc ko bu defee kenn mënu koo gis prix bi daal di jóg ñu génne ko jaayee ko lu cher loolu mooy ixtikaar te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ku ko def juum nga ku ko def mooy nga yàlla loola yonent bi moo wax ne la yaxtakiru illa xaatiun waxaan ne man ixtakara xikratan yuridu an yuxliya biha ala almuslimina fa huwa xaati loola bokkut ak ki mu am marchandise moo xam ne am na waxtu wu mu baaxoo cher ndax waxtu woowa day manqué waxtu wi mu baree mu jënd ca loo xam ne da koy denc ba mu cher loolu ayut ndax nit ñi waxtu wa koy jënd di denc booba nit ñi lañ ca soxla mën nañ koo am waaye li ñuy bañ ñu den jënd ko lépp denc ko wala wala ñuy den jënd ci lu bari ba nga xam ne day manqué nga xam ne warut a waaye manqué gi jënd denc gi ñu ko denc moo ko tax a cher kon loolu la ñuy bañ kon loolu la ñuy bañ loolu moom dafa mat a moytu lool ndax yaa ngi lor jullit yi ku koy def yaa ngi lor jullit ñi loo xam ne it mat naa moytu dañ koy faral di def ci biir marché yi te mooy li ñuy wax najis mooy nit di waxaale nga ñëw yëkkati prix ba te yow jubluwoo jënd ñëw fay loo xam ne day tax ka doon waxaale moom dootu mën a ñàkk yokk loxoom ci ma koy def jënd taxulaa jóg nga xam ne da nga bëgg rek moo xam da ko yëgoo ki koy jaay wala yëgoowu leen ci waaye loole ku ko def def nga loo xam ne lu araam la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo tere yonent bi dafa wax ne wala tanajashu wala yabiu rajulu wala bay'i axihi bu leen ko def mooy di ñëw di yëkkati loo xam ne àggu fa ngir ñeneen buñ ñëwee di jënd mën a fay lu gën a cher kon yooyu yëpp ay teggin la yoo xam ne yu mat bàyyi xel la waaye jël it ayib ju nekk ci li ngay jaay nga di ko nëbbu ba kiy jënd du xam ne ayib a ngi ci nga jaay ko ko loolu xicc la te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne man ghasha fa laysa minna képp koo xam ne yaa ngi def loola yow day bokkoo ci jullit ñi ndax yaa ngi def loo xam ne lislaam da koo da koo tere te yooyu yi ñu wax yépp nag li tax mu mat a bàyyi xel mooy ku ko dul moytu la ngay jaay mën naa ñàkk barke te liggéey nag lay tax mu jariñ ka koy def mooy suñu borom subhanahu wa taala barkeel ko moo tax kon lépp loo xam ne dañ ne dañ wax nañ ne day far barke ci am njaay loola dafa mat a mat moytu te yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ko ne ñi ñaar ñi nga xam ne dañuy jaay ko jënd saa bu ñu dëggalee kenn ku nekk wax la ne ci yow nee na suñu boroom dana barkeel seenum njaay ak seenum njënd te loolu nag moom la kenn ku nekk war a xañtu kon barab bi nga xam ne day barab bu bu am worma kon ku fi nekk looy mën a liggéeyee war nga caa bàyyi xel la la lislaam digal ak la la lislaam tere ndax loola mooy sàmm ormay barab bañ a jiital sa bëgg-bëgg bañ jiital sa am-am waaye gis ne suñu borom subhanahu wa taala lépp lum mu digle lépp lu mu tere rek ngir njariñul jullit ñëpp la ndax li ñuy bañ loo gis ñu tere ko rek loor ja ca lor ja cay juddoo wala li ñuy wax xarar nga xam ne nit ki la ngay la ngay jaay la ngay jënd dana am lu ca wóoradi loo xam ne ay risque da cay nekk loolu bu ñu seet ñu seetloo yi ñi tere yépp ngir bañ nit ki loroo ci ndax bu ci loru amee rek li ñuy wax ak lu am wàlli naas bil baatili da ciy am mooy lekk alali nit ci loo xam ne ak neen la te loolu dafa araam loolu dañ ko tere te it nag liggéey bañ koy wax bul xalaal la Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu di wax mooy fàggu lu kon rek du fàggu alal fàggu loo am di ko denc ngir di ko jëfandikoo waaye fàggu lu ndax nit ki la muy dunde bu lewut jaamu yàlla ga muy jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala du ko nangu loolee moo tax nit yàlla yi di fonk di bàyyi loo xel lool nit ki la muy dugal ci biiram te la ngay dugal ci sa biir nag fa fa nga koy jaarale ba am ko foofa dafa mat a seet te mooy kuy liggéey nga bàyyi xel ne liggéey bi la ca jiitu mooy dundee lu lew te dunde lu lew loolee nag mooy sàmmonte caag tere yi lislaam sàmmonte caak la la lislaam digal te loole mooy doon njariñul nit ki waaye mooy doon njariñul askan wi yépp nag ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ak dégg ak topp te ko ñaan mu barkeelal ñu képp ku yëngutu rek suñu borom defal la barke ca la ngay yëngutu waaye defal la nga tënku ci nag njàngalem lislaam tënku ci tënku ci njubug lislaam ndax loola mooy jëmale barab bi kanam gën a jëmale nit ñi kanam jëmal gën a société bi kanam loolu nag moo yàlla nañ ko suñu borom subhanahu wa taala defal te saare fi barke te saare fi jàmm te fi xéewal waaye di ko ñaan mu yàggal fii ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Mountakha sàmm ko yokk ko wér yokk ko aw fan ba nga xam ne lépp limu mu yéene li bëggal yéene nu ko dina ko mën a sottal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 المتصرف كيف شاء في خلقه وعباده وخلق منهم من شاء وهداه إلى سلك سبيل رشاده وأعرض عن الدنيا وزخرفها لعلمه بمفاده وأقبل على آخرته وأكهر من الزاد ليوم معاده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه الذي بنوره أشرق الكون في أغواره وأمجاده أما بعد فيا أيها الناس خذوا القناعة من دنياكم وارضوا منها بالقليل ولا تشتغلوا بعمارتها والتنافس فيها فإنكم منها على رحيل فانتهوا رحمكم الله من سنة غفلتكم واستيقظوا من عظيم نومتكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واجتهدوا فيما يدخلكم الجنة وينجيكم من النار ذلكم باجتناب المعاصي ولزومكم التقوى وكثرة الأذكار قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى الحمد لله الذي ألبس أتقياء أتقياء عباده من عذابه أمنا وجعل عاقبة من أهرب عن عبادته هما وحزنا نشهد أنه الله الذي أسعد أسعد الإسلام برسوله وأقر وأقر للمسلمين عينا صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذين نالوا بقربته سؤددا دائما وغنى وأصحابه الذين كانوا على نصرة الدين عونا أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فانهدوا لما خلقتم له وأحسنوا عملا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ولا يشغلنكم التكاثر في الأموال والأولاد وقصروا أملا وإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إن الله قد حد لنا حدودا وجعل علينا حفظة وشهودا فبادروا بالتوبة النصوح من كل ذنب صغير ما كبير فامتثل القول ما لا من لطيف الخبير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم عاملنا بلطفك بما أنت أهله يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا بما نحن أهله واغفر لنا ولعامة المسلمين يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaat hayya ala alfalah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar akbar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 الله أكبر الله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 وأشور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مقبولة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سمع الله حبنا لك الحمد الله أكبر الله asalaamaaleykum.